mbindum si daaj Maalik di jib mbindum sëriñ di jib mbindum Seydina Limaamu di jib weer wi nag weeru Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam muy weeru Rajab li information la rek bu may joxe bàyyi sëñ Balla ko saa jël ndax ñoom sëñ Mor Gueye sëñ As Jibi waa kër si daaj Maalik sëñ Mame Bay Laay waa kër Seydina Limaamu Baay Faal yi kenn ku nekk am na ci cër te lii la réew mi soxla may siyaar ñëpp nag ndax maag sëñ Moustapha Kane ñoo lii ñi waroon na ñëw bu leen bàyyi woon ñu ak si xajuñ ci saal problème boobu la ñu amoon ndekete suñu borom moom li ko neex rek lay def borom mbir mi sax mi ngi bëgg ñëw ci mënta dem danaa ko naan ko dee ngaa jël la président koo bëgg jox lii mi mu bëgg a jël jakartaam loolu effectivement la dana balaa ko teel parce que lii lépp ci jàmm la xaj sëñ Moudou Niang lii information la bu joxe rek ñun ñu koy séntu mais en même temps ñu toog a ni ndax it instant bi bu ñu génnoon nit bi sax na dañuy tas jotaay bi du ñu génn ndax instant bi dañoo bloqué. ci kanam tuuti nag dana débloqué wu ndax réew mii képp ku jël saw ay ne fi nga ko jël dana këpp sa kaw akkoo doon dund àjjana ndax naan la chromosome yi yëpp ci biti yi ma gis ci biti ñii di tissuur ñii nar cee soj soj bu metti yéen leen dal kilib yaa ngi leen di dugg dund leen àjjana ci weeru Rasulullah yëkkati leen seen loxo ci kaw ok